di fàttali itam nag Serigne Touba ñaan yi nga xam ne daana ko ci santaane ndax xasida wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu fahaakum haasihi al abyaat shifaan min kulli daain wa xisnan xasinan min makaid jamiha al adaa yaa rabbi bil mustafa al muxtaari min mudar shafii ummatihi fi lbadi wal xadari alayhi salli bi taslim bila adadin في الآل وصحبه وعصمنا من الضر إلى آخر القصيدة قصيدة جوجو نكو نيب مورا الشيخ محمود منتخا سانتاني ونكو ديم با جوخ سي ديال نانين كو مول تاسارا كو نيب ديكو جانغ خسيدة مدو شفاي خم ген سيرين توبا خم ген لا تخول مو ديفكو بابا اس سوخنا فاتي عيسى واخنا ني سي ساهر سا moo doon taxaw sëñ bi moo tax sëriñ Tuubaa taalif xasida ga googu ñu ngi koy digal ñépp ñu du ko jàng ngir yàlla musuñu ci wérdi gi ba ca dolli ko waat mooy wakkaane xàqan wakkaane xàqan lu mel ni dafa mas am ca Mauritanie mbas mu jëkk ci dugg fa am ku gént ñëw ci sëriñ Tuubaa ne ko dañoo yëg ne am na mbas mu dugg ci biir réew mi بمخيوانك نقعد فالي في قصير وقع نحقن بينكو جانجر مباس ما تاقوك نيب سرين توبا دادي جنة كبير جنة قصير وقع نحقن موين بينو متاخب مباس ما تاقوك نيب كون نين بولي زاو بو سهر اكساو بو باتن نحو لوچنا دفعهم إنا مكنا له في الأرض وآتناه من كل شيء صبرا فاتبع صبرا bokkatan abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman kon nag ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp